préfet Dakar, Madame le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Madame Zahra Iyane Thiam may nuyu représentant collectivité territoriale yi di nuyu président des associations d'élus locaux di nuyu président de l'association des départements du Sénégal di nuyu président AMS di nuyu ki nga xam ne itam représenté na fi collectivité territoriale yi di nuyu le représentant du directeur du kose di nuyu nag sama ay naataango nuyoo bi nag bu bureau municipal bi maa ngi ko teg ci madame Waré Diaw madame le maire Waré jaw adjoint au maire de la ville de Dakar sama seet bu bees boobu maa ngi koy nuyu sama nuyoo teg ko ci loxo pour bureau municipal bi di nuyu waa conseil municipal bi yépp maa ngi leen di nuyu nuyu boobu maa ngi koy teg ci loxo madame Mbacke mu jottalil ma ko suñu naataangoo conseil municipal yépp Aïssatou Fall maa ngi lay nuyu bu baax dégg naa sa nuyoo jërëjëfati di nuyu monsieur le directeur de cabinet Biraka Ndiaye danaa la tooñ tuuti mburoog sow maa ngi lay nuyu <laughs> di nuyu monsieur le secretaire général de la ville de Dakar di nuyu madame la secrétaire exécutive de la plateforme des acteurs non étatiques di nuyu le coordonnateur madame la directrice du FODEM ay waay jigéen ñi tàccul leen ma madame Samb tàccul leen ma ko tàccul leen ma ko madame Samb madame Samb yaay gor madame Samb yaa baax madame Samb yaa bëgg li ngay def madame Samb gannaaw yàlla tey bu taxutoon ak yow lii fi am tey du fi am kon maa ngi lay sant bu baax di la gërëm yaa sa équipe kontaan naa torop sa sama xol dafa tooy kontaan naa torop ci yow madame Samb yàlla ñu yàlla lafal cat di nuyu nag suñu partenaires yi muy waa RABEC waa INTouch RACTES di nuyu chef de service yi directeurs yi ak chef de service ville de Dakar yépp di nuyu nag encore sama mbokku jigéen ñi mesdames. politique politique la bés bu vote jotee ku la neex ngay voté la xam nga foofu man de man man sama ku ci nekk am ci loolu yëngal parce que nga paas su ko demee ci ay réunion politique mën na jënd sa ndekki doom mën na jënd yére mën na jënd dàll mën na jënd leneen kon nañu jëriñ suñu bopp jëriñ suñu njaboot jëriñ réew mi parce que loolu ñuy def mooy développer réew mi mais boo bëggee toog man lu ma gën a bañ rek mooy kuy tàllal loxo tàllal loxo baaxul dafay tax duñ la respecté dafay la yàq te ñun weesu nañ ko jigéenu Sénégal weesu na fu muy tàllalee liggéey lañu xam ca maam ya ba tey liggéey lañu xam boo yeewoo fajar bay génn ba gis jigéen ñi dem ci marché yi. jigéen ñi nekk di yenu ay paanu jën di dem mais ñooñu am na ci loo xam ne ñoo ko xaalis ñu toog yi kon nañu yar suñu liggéey amul xeeb liggéey liggéey boo mën a liggéey baax na l'essentiel mooy nga mën a faj sa soxla kon lii ñuy def nii tey di ko def à travers le FODEM ñëpp am nañ fa seen place ku dem foofu déposer sa demande joxe sa dossier danañ la jël. buñ la jële formé la buñ la formé encadré la buñ la financé di la topp di la jàppale pour nga bañ a daanu ndax bu ñu fàttali ko maîtrisard yooyu fi amoon il y a quelques ñu dem jox leen ay financement yu bari ay 25 ay 20 millions mënul ñetti weer ñoom it ñu daanu mais lii ñuy def tey man je trouve bii mooy solution nit ki da koy nekk ay kayit taxawalal sa entreprise nga nekk dans la légalité. boo amee kayit yooyu yëpp ñu accompagner la avec financement lu mu tuuti tuuti gis nga am na ay nit ñoo xam ne cinquante mille lañ commencé même pas tey ñu ngi yore ay milliards parce que dañ koo gëm xam nañ ne yàlla moom ku liggéey jëriñ ku liggéey jëriñ waaye nag lii amoon si réew mi ñuy toog rek di xaar jëli ba sama doom dugal ko fii dem non loolu dafa war a arrêté te ñun ñuy jigéen ñi tey ñun ñoo ko mën te danañ ko def bu soobee yàlla dinañ ko réussir kon loolu dañ maa ngi sant nit ñi gërëm jiital nag ci sant bi maanaam Samb di ma équipe am équipe bu fa dem yëpp maa ngi sant di leen gërëm suñu partenaires yi à commencer par le RABEC a ñu jàppale ci formation bi danañ continuer di liggéey ak yéen ñun ci formation yi partenaires yu bees yi di ñëw 10 yooyu yéen a yee tuddee ko dégg naa ne madame Samb déy na ma nee na Dakar dina am 2 000 yoo xam ne Dakar lay doon 2 000 yooyu bu ñu ko jëlee def xale yi ak utiwaat yeneen partenaire kuy joxe financement rek madame Samb dana lëkkaloo ak yow pour seet nan la fi mën a jëlee ay fonds yoo xam ne dana ko jox jigéen ñi dana ko jox xale yi loolu moo ñu war rek ville de Dakar taxawaay boobu la taxaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp monsieur le maire Cheikh Gueye yaa ñu accompagné boobu ba léegi yaa ñu accompagné. vraiment man forum ñu jotoon def yëpp dew ma ci yow yaa demoon Séoul bu ñuy def séminaire Saly Cheikh Gueye mooy dem ah Cheikh Gueye nag mooy mooy mooy jigéen ñi ndax dégg ngeen sànq nee nañ leen Cheikh Gueye faamu dëppali ñoom la rabe bi njëkk a formé kon nag mooy sant di ko gërëm Cheikh Gueye ànd bi yàgg na ànd bi yàgg te lu rafet rek moo dox suñu diggante kon dama lay sant di la gërëm di la wax ne ah yaay meer bu jigéen ñi waaye jigéen ñi def am nañ meer bu góor mooy Cheikh bi may sant di gërëm di fàttali rek di fàttali rek ne Dakar ville propre di fàttali ne mbas mi jógee ko fii nañu ñàkku xam nga ku ñàkku mën ngaa bañ a sol masque mais même boo ñàkkoo nañu ne takk les masques toppatoo ci hygiène bi ma ci profité di jaajëfal waa service d'hygiène ñu ñëw te ci suñu manifestation bi pour jàppale ko. di sant waa ville de Dakar volontaire ville Dakar yi gis naa yéen itam seen taxawaay di wax ne boo réew moom loolu rek la ñëpp dañuy jàppalante rek moo tax économie sociale et solidaire boobu ñuy wax solidarité dafa am solo ci réew nañu yaatal Sénégal dëkku teranga na xol yi ànd ñu juboo ñu liggéey loolu mooy avancé dëkk bi yeneen yi yëpp ay caaxaan ku bëgg a liggéey xam fi nga jëm am civisme am sensu patriotisme bëgg sa réew bëgg wér gi yaram set nañu set nañu set nañu set set bi dama ci insister ba may wax Dakar fii borom boobu mbas mi ñëwagul un an après xaw ma un an et demi après ci la mbas mi ñëw ñu naan raxas leen seen loxo yeeg set leen nag moytu leen nag daf leen loolu jigéen ñi nous avons un rôle important à jouer ci propreté bi nañu yar suñu doom ci set nañu yar. population xam nga boo demee ba mag moom sa kenn mënatul changer sa habitude mais foo toll di sànni ay këyit foo toll di yàq bien public sa yoon nekk ci loolu baaxul ci réew lu ñu fi yàqoon yépp ci événement malheureux yooyu fex moom il faut ñu liggéeyaat pour defaraat loolu yëpp kon nañu yar suñu njaboot ñun nañu yar suñu bopp bëgg suñu réew liggéey pour Sénégal jëm kanam maa ngi leen di sant